إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم حق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من فيه غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فضل الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العشي بوجد والخدوات كانوا عبادا بالطاعات لربهم wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati xanaa góorgóorluwaat ci sunu sunu taalibe euh, te jiital sunu lislaam xam ne li tax ñu bind ñu ginnaaw sëñ a fàttali nañu ko demb ñu ne ci loolu la ca des mooy sunu pësteef ci Serigne Touba ak jébbal ko sunu lépp ñu fexe mu doon jëf ba doon di wax yàlla ñu ci yàlla dimbali <laughs> jërëjëf. waaw moom dundam gépp dundam gépp sëriñ bi la ndax euh, sëñ Tuba da ko wóolu woon njabootu sëñ Tuba wóolu ko ci saa su ne fu murit yi dajee mu ne ci seen kanam ci wàllu diine ku ñu doyloo nag ci wàllu diine wàllu àdduna taxul ñuy wax kon moom sëñ Cheikh mii it tànk yooyu la tege ku ko xool xam ne àdduna ak li ci biiram tollu ko fen moom sëriñ bi ak liggéeyam bi la xool kon nañu roy ci moom rek te góorgóorlu àdduna daal ak raj rajoo bi bu mu ñu yëngal bu mu ñu yóbbu fen àdduna li ci biiram bëgg sëñ Tuubaa ko gën a diis moo ko sëñ Tuubaa mooy ki nga xam ne hubbuhu nuurun wa iman koo gis mu bëgg sëñ Tuubaa da boo yeboo jàppal ku baax a ko waaw buxduhu bañ ko shiqwatun xatxan wa xirmaan yaa nañ ci yàlla musal من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرقى ستر فاهلك هاموا زراعا لإحياء الجنات باعوا فضولا بشكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بال تجفو مضاجع في ليل جنوبهم ناسين bi وليلى بالبشارات pour siyaare si ngir siyaare si sëñ Moussa Abdou Khadir mi ndokkale ko ci bis bu tedd bi nga xam ne moom lañu bokk nun nu daje fi ñun waa kër sëñ Abdou Lahad sax maa ngi ñëw daje feek sëñ Cheikh sëñ ak si loolu lépp li ko indi mooy diggante sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Khadir ak diggante sëñ Moussa mi ak sëñ Abdou Lahad barki démb laa ci mujj a wax loola doy na lépp neewaan naa sëñ moom mii ñëw na ci sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Khadir ko mu jóg ba woon ko gannaaw mu ne Moussa mii de def naa ko am nawle daal ni sëti sëriñ bi koo ca xam ne fi may jomba teg sama tànk jomb nga faa teg sa tànk ma def la naw nawle te Moussa mii ca ñooñee la bokk fan yii rek seede naa ko muy mbokk moo xam ni ñun ñëpp ba nañ ko xel sant ko bu baax gërëm ko ci doxin bu rafet bi mag ñi fi nekkoon di suñu wajur yi ñëpp a ko joxoon cër dale ko ca suñu soxna bi mi nga xam ne moo fa bokkoon nekk mu jàngal ko dale ko ci suñu Abdou moom jéggi na dayo suñu Abdou Lahad sax àggoon na ci ni ko sëñ Touba daf ma laa fàggul ci sama biiru xilaafa foofu foofu la mbir mën a yem te sëñ Abdou waxoon na ko seereel ko dañ koy ñaanal yàlla mooy fan wu gudd sag la ci sëñ Touba sag la ci yoon wi sag la ci bokk fan wu gudd lañ lay ñaanal ci barkeb Seexul Xadim mel na ndog nga bañ koo am ba ak waajur defee ci yoonu Sëñ Tuubaa bi siggal ko yàlla saxal barke si jërëjëf ñaanal ñaanal barke Abdou Khadir de moom li ci Sëñ Muntaxa seede ginnaaw ay waajuram ñëpp dégg nañ ko la sëñ Abdou Aziz ah, da baax waxan ci moom ñëpp dégg nañ ko ku bëgg a gis jaamu yàlla buy dox ci kaw suuf dëkk na te ak ruum taqalikoo jëmmam xoolal sëñ Abdou Xaadir Alaaji Abdou Aziz Si Dabaax moo ko wax sëñ Muntaxa seede ko seede yoo xam ni ci wàllu waxtu yu juróom jullit ajjuma fonk sunna ragal yàlla ba du lekk ndax sëñ Abdou Xaadir ni sëñ Tuubaa la toll woon doxinu sëñ Tuubaa it moom la daan dox laabiiruk sëriñ bi moom la moom la laabiir kaddu sëriñ bi moo nekkan ci moom kon nga xam ni bu meññee sëñ Moustapha mii sunu borom dogal sëñ ma ñaaw si la di maamam bis bi demee nii mbooloo mi di ko sëkkatal war nga xam ne loolu war naa mën a ne sëñ Tuubaa dafa wax ni ko sant si la bu seexu di sel ñu ngi ko lu tax mu ni euh, Abbas day seen maam te Abbas day bàyyi bu Rasulullahi sama sama waa ji kon sëñ Moustapha daan de ci la. baayoo Mbàkke sëñ Abdou Khadir moo la mel meññ nag sama yaay Sylla la sant doy na sëkk wala sama yaay Jaxate la sant wala Busa wala Dramé wala Guèye wala Njaay wala weneen sant te suñ tuwaan ñetti ndab la fi fekk bii moo ko yett raxas ko def ci bii fekk nañu yett ko moo ko raxas def ci doomi soxna yi fekk na leen ñu duy tuuti moo leen fecc la ànd ak ñoom dem sëñ Moustapha daal maa ngi lay xamal ne boo bëggee sëñ Muntaxa bay boo nga seet ko boo bëggee sëñ Moustapha seetal sëñ Muntaxa benn lañu ñoo bokki xol bokki yéene bokku bëgg bokku laabir bokku tab bokku yërmande sëñ Muntaxa rek laa koy xoolee ndax qualité bu ma gis sëñ Muntaxa ba bëggee ko ko gis naa ko sëñ Moustapha ma nag maa ngi ñaan sëñ Muntaxa yàgg fi téwér li mu mébétal sëñ Tuubaa ñu ànd ko mu liggéey ko njariñ li wesaaroo ci bind fi ñëpp jariñoo ko kon a xam na ne bisub Sëriñ Abdou Khadre ci sunna rek lañ ko war a mën a dundalee ndax ak dundam yëpp moom da koo jeexal ci ñaari ñaari tomb yi mooy al istixaamatu ak as sunnatu Sëriñ Abdou Khadre képp koo toog ci kanamam tamit ku ko xam boo tuddee al istixaamatu xelam dem ci Sëriñ Abdou Khadre boo tuddee as sunnatu xelam dem ci Seexuna Sëriñ Abdou Khadre kon nag bisam mënee su ko dundal ci lu lool mooy lu am solo loo xam ne nag ñun ñëpp war nañ ca doolee góorgóoru ndax koo xam ne indi na loo xam ne taarix xamu ko mooy gane jamono rek di ràmm loolu ci Seex Abdul Xaadir lañ ko njëkk a déggee te ba léegi déggaatuguñ ko ci keneen bis bu mel noon nag jar na nit bàyyi ko fépp fu mën a nekk ci àdduna ngir teewa si ko ngir jot ci ngëneel loolu nga xam ne ak njëgalu si borom googu nga xam ne àndaale woon na ko loolu mooy taxawaayu Serigne Cheikh Ahmadul Xadim mi toog ab jotaayam di taxawaayu Cheikh Mahamadul Moustapha mii ngeen ñu fekk ci këram tamit jëwrinam waaye mooy taxawaayu daayira Mawaahibu Naafi bi nga xam ne ñoom ngeen jàkkaarloo tey ñu nekk ci kër Cheikh Mahamadul Moustapha ànd ak moom muy liggéeyal Serigne Touba te tànn ngir ànd kook ñun kon ci tënk noonu mooy ni nga xam ne moom la ñuy dundalee bis bi waxtu wi nag nodd na ñuy waajal julli tisbaar suñ noppee daa di teewal xéewal yi bu ñëpp xéewaloo ba noppi ñu delluwaat ci durusum alxuraan ak xasida yi ba jant bi so insha allahu taala fa haysuma barasat layla bi bajatiha anha tawallaw ila almawla bi taati ينسون ليلى وسودا في قيامهم مستانسين بأذكار وآيات حديثهم ذكر مغن نافع صمد لا ذكر حند ولنا في المقالات قوم بأسلحة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده زهر وعزلة عن سيوخ بالإسارات